Euh, ñu nekk ci mois euh, de la femme euh, aujourd'hui situation jigéenu Sénégal c'est vrai que dañuy félicité wu ci li nga ci jéego yi nga xam ne def nañu ko waaye bari na Euh, chantier yoo xam ne war nañu ko gën a ful muy la question de l'autonomisation économique la question de la sécurité des femmes la question de la euh, des violences euh, faites aux des violences faites aux femmes la réforme du code de la famille mars bi waxaat nañu ko war nañu accorder aux femmes l'autorité parentale yow ma gis démb benn entretien ñu ne ñuy wax ne danga ku bëri yërmande nga ku bëri woon yërmande nga ci sa waajur bu bu bu jigéen euh, da nga ko doon sax demal marché souvent góor yi nga xam ne famille yi nga xam ne bariwul góor ñoom ñooy am yërmande boobu ci seen yaay di ko demal marché euh, je pense que euh, c'est pas votre cas yërmande boobu nga am ci sa waajur bu jigéen Euh, fan la fan lan moo ko lal et puis euh, nan nga koy transposer euh, pour améliorer la condition de la femme sénégalaise. jërëjëf xam nga maa ngi koy wax ci benn émission yàggul man sama yaay taaw la woon mais ñu ngi dëkkoon sama kër maam mais sama yaay ay rakk yu jigéen la am ñu ci ëppoon benn bu góor lu ñu amoon man may naa man may sama taawu yaay maintenant ni kër yi di doxee. li ëpp ci liggéey bi sama yaay moo ko doon def mooy fóot mooy duggi mooy def lu nekk maintenant boo dee xale juddoo ci condition yooyu yàlla def ma mu am yërmande ci sama yaay parce que xamoon naa ni lu metti la donc euh, voilà donc bépp liggéey bi mu doon def dama ko jaan fekk si buy fóot ma ñëw jéem a jàpp ci tuuti buy waree dem marché récréation ma génn ñu jox ma sama siwo ma dem marché ñëwaat loolu moom def naa ko lu bëri mais fan nga tiré force boobu <coughs> à une époque où euh, booy def loolu sa morom yi dinañ la ree euh, dinañ la dinañ la tooñ. Euh, fan nga tiré force boobu pour taxawu sa waajur bu jigéen. bon defe naa mën naa wax ni c'est venu spontanément. bi xolu yërmande je voyais ma mère se pour ñun ñu jàng je voyais ma mère pour mes petits frères et mes petites sœurs maintenant man ma ñëw ci di ko di ko di ko ci jàppale. au début c'était spontané bon c'est vrai que say xarit nañ la tooñ dangay dem marché góor buy def nii góor buy fóot mais bon après je me suis habitué mais dama daan xaar ci classe bi bu ñu ma tooñee ci mber mi daal bu ñu ci classe bi moom ma fexe daal ba ñi may tooñ duñ ma jiitu ko donc et après ça compensé quelque part donc euh, ci condition yooyu laa màggee di dama daan dem marché tous les dix heures xam nga une récréation de quinze à vingt minutes sama yaay jotoon na arrangé ak sama maître may am retard u cinq minutes am kuñ ma booleel marché bu ma demee mu duggal ma defal ma ko ci siw ma ñëw andil ko sama yaay ci lañ waroon togg ak kooku def naa ko au moins plusieurs années bi ma koy bàyyi fekk na ma dem lycée mais bi may def sixième ba CM2 nga xam ne école beeg sunu kër ñoo jàkkaarloo woon mais ça je le je le faisais presque tous les jours. alors boo tolloo ci wut réew euh, sa enfance sa parcours. Euh, sa vie sociale familiale euh, mën na inspirer euh, sa yéene bi nga nar bi nga am ci ñi nga xam ne ñoom ñooy say concitoyens yéene boobu tey lan la par rapport à la femme. alors xam nga nag loolu man li may dund la bés bu nekk. et même daf may indil jafe-jafe bu ma gisee nit ku sonn damay xam lu li muy daj lan la li muy dund lan la parce que day fekk man ma. jaar ci lu mel noonu wala ma jaar ci lu nuroog lu mel lu lu lu lu nuroog loolu bu may fàttaliku bu may dem lise dama daan dox loolu tax na bi mu njëkkee am oto xale bi ma romb ngay sob dama lay yóbbaale parce bu nekkee da ngay dox jógee Grand Dakar dem ba de la fosse lu metti la naaj bi dafa tàng jamono jooju set yow du woon journée continue da ngay liggéey huit heures da ngay jàngi huit heures wàcc ci midi gontu deux heures demi wàcc six heures demi bu mu mosaan gis kenn ku ma yóbbaale wala kenn ku yor moto nga romb mu jël la yóbbaale la ni ma doon soulagé man bi ma njëkkee ab oto bi ma gisee xale buy dox wala moo xam étudiant la moo xam élève la wala moo xam même liggéeykat la boo xamante ni kii dafay nekk dans le besoin donc euh, dam lay dam lay jëlaat et dafa tax man mënuma je sensible ci loolu moo tax dafa mel nañ ma ci xaw mu ñu ma ci nenn boo ñëwee sama buntu kër c'est toujours plein de monde maintenant ñenn ñi dañ koy interpréter kii dafa am lu dul jeex c'est pas ça en fait euh, nit ku bu ma gisee nit ku am ay jafe-jafe dama la yërëm il m'arrivait dem hôpital gis fa ay nit dix personnes quinze personnes ma jënd leen ay garab bon du woon li ma yoroon sax day barewul woon du woon loo xamante ni mën nañ ko mais je me disais que mës naa feebar euh, wala feebar dab na ma te amul lu ma fajoo xam naa donc loolu lu mu mette bu ma gisee ku feebar di ma dimbali ko bu ma gisee sama buntu kër nit koo xam ne dafa ñëw jàmbat la dara du la bëgg a neenal. maintenant am na ñoo xam ne ils en profitent am na ñoo xam ne ils viennent tous les jours mais loolu aussi àdduna noonu lay doxee da ngay def rek ngir yàlla.